jadi Jangan tahu Yondi gajel ifi wai Luntinya mukul Kau menunggu di dunia

nit bu tëddee di nelaw bul dugal sa loxo paaka mbala fourchette di ko xoos man dimanche laa ñibbisi ci dëkk bi mhm. man Youssou Ndour moo ma yëgal xaw ma woon ndekete dëkk baa ngi toj fu ne nit di ma koo bi ma ñëwee ba dugal sama bis Sénégal dafa mel ni dama ray nit tama ay nitu sëriñ sax dañuy yëkkati seen téléphone di ma woo te wax kenn dara Adama man musuma ma je ne sais man man man de ma vie je vais jamais faire ça mais dama ne la man une personne ne me dénigre pas au Sénégal man duma tapet man ci dëkk ne la dëkk màggee fi yaroo fi paasuma ñëw duma duma duma drogue duma caga duma lesbian, kenn tëddeewuma ken gisuma ci hotel, bokuma nat bokuma tour bokuma daayira sama abis garden la am ak samay business sama njabot sama kër jeex na man fu ma waay di wër dooma fa fekk parce que demuma dikkuma après attaque yi commencé ñu def coalition hee coalition boobu day saf de tàmbaleegul yow toga rek nga seetaan kan xam nga ngay seetaane eh? semaine prochaine ci ngay am yow loka kaa parce que yow kaawagoo tàmbaleegoo de déggoo ma la conteneur yi am Dedua nañ ko ba pare te xam nga fuñ ko dugalam ci sunu bopp yi ndax lu ñu la kon daal da ngaa bëgg a wax ne sa doom. kon yaakaar naa ni ñoo déglandoo kàddu yooyu nga xamante ni ki nekk ci vidéo bi yëkkati na ko man nag duma ci commentaire duma ci wax A duma ci wax B li may wax rek junju doy na borom xel. wax ju yegg dafa ko moom yéen ñii seetaan def leen ci seen jàngat def ci seen analyse ba noppi daal di ci tirer ay conclusions wasalaam. toujours dans votre scandale du jour de ce lundi 6 novembre sur la chaîne des grands événements VIP People TV dama bëgg ñu seetaani benn vidéo kii kat nee ab candidate la pour nekk présidente du Sénégal en 2024 muy doomu kii nga xamante ni mooy Babacar Ngom Sedima di Anta Babacar Ngom mooy borom KFC nañu déglu tournée bi mu doon def ci otoom moom ak jeunes yi naka la meloon nañu déglu ñu vidéo bi dellu si نمونن الله يونو نمونن الله خلا ديغلو وما ليغي ديغلو وما ليغي نيو شانجمون لا نيو فوكس يس يو bu ñu wàññee kenn keneen jóg noonu la demee nag affaire bi yow la su yoon newu si Sonko mais dégg ma dégg ma hé hé hé dégg ma anda balaa nga dugg palma na jëlu ñu naan café ko déjà ñoo seetaanandoo vidéo boobu nga xamante ni kii di Anta Babacar Ngom mi ngi taxaw ci kaw otoom di wuti ay parrainage nee na candidate la pour nekk présidente du Sénégal en 2024 elle est sénégalaise kenn terew ko ko ku mu am neex am nga sañ-sañ nekk présidente waaye nit dafa baax nga xam sa bopp balaa ñi lay woo di la naan yow yaay kan nit balaa ngay ji as jiite réew da ngay xool yow lan nga defal sa réew waaye sa baay doon na self made man déparé soixante mille Babacar Ngom du Anta Babacar Ngom il faut ñu xam loolu yor KFC ak yor réew ça fait deux KFC ab pooju ginaar bu ñu lakk la tey soo demee Europe mbaa dem États-Unis maanaam ñi ñàkk baadoole yi ñoom ñoo koy reeree waaye ñu am duñ ko lekk kon yaakaar naa ne bu mu duggee coto bi jeunesse bi mu dajee ñàkk gëm biñ ko ñàkk gëm ñu ngi koy xamal ni ko Sonko la ñu wax mu bëgg a tudd léegi moom amul ambition amul conviction mi ngi leen di naan changement la ñu wax li fi nekk la ñu bëgg dindi lan lay changé changement dafay fekk yow nga ne lii ak lii baaxul lii ak lii laa bëgg a changé ak lii mais kenn ci mënu la wax lii la ñu bëgg Sonko ni mu ko indee foog ñu changé système bi te amul kenn ku bokk ci Sonko ne la ak lii la système boobu moo def defar Sonko bu mu am kër système boobu moo tax tey sénégalais yi xam Sonko système boobu ci la ay doomu Sonko jànge système boobu ci la ñi topp Sonko ba tey jii di dund muy euh, Bassirou Diomaye Faye muy Birame Souleye Diop muy ñoom Guy Marius Sagna muy ñoom Abbas Fall muy ñoom Ayib Daffé bi lañ nekk moom jóg na ne leen changement la wax pour que jeunesse bi ànd ak moom moo tax man leen souvent dañoo nekk ci virtuel maanaam dem wuti ji nit jox la carte d'identité la nangam ça ne veut pas dire que yow lay voter maanaam kii tey dafa sentir nañu benn énervement boo xamante ni génn na ci moom. yow jiitee go Sénégal 18 millions d'habitants. simple Mumbai, bobu rek ab yuuxu buñ la yuuxu rek sant nañu benn énervation Wa taxaw na ba yu waaye déglu ma rek déglu ma déglu ma changement la xaw nangam sangam dem na bay ràlli yeewu ji Sonko kon yaakaar ni Sénégal yi ñoom ñoo wara a xamna ñi dañuy fontu di dof doflu waaye Anta Babacar Ngom bi xamna ni mënta jiite sax boulangerie waxatuma la nak di jiite Sénégal kon donc yaakaar na ni tungu ne du teew ñi na vidéo bi mo woné ni incompétence pour mener diriger Sénégal moy limay wax rek tour lañu bëgg ak buzz pour ñu dégg leen

lan la Sénégal il faut que sénégalais baye ben complexité ki moy doomu diw wala qui moy doomu nangam ñun on s'en fiche de doomu diw wala de doomu nangam nit ku nekk da ngay def say preuve yo xamanteni yow ko defal vidéo bi ak lamu daj war na ko bu baax xam ni ku ko ko gérer li nga ọmọ olùdókè ti di gbọ́ngàn tó tó dáńtọ̀ lọ́wọ́.